loo xamante ne Serigne Ba mi koy wax léegi léegi ñàkk kaaraange bi jigéen ñi nekkee ci biir TikTok beeg wane seen yenn cër yeeg yu demee noonu lan nga leen ci lan nga lan nga gisee loolu. waaw Ibou damay faral di wax naan ah, yàlla dafa am beneen yàpp bu dul keccax mhm. te dama naan ah, sàcc yàqamti wërsëgam la waaye boo teewoon amaana la nga jël mhm. balaa gudd jot yàlla may la lu ko ëpp mhm. te Ibou gis nga nit la war a am wala la yàlla bind ci jëwam du Ibou du mami du Gaston du Oustaz amul kenn kuy wax ba doo ci jot am bu ñu tëddee ci lal yow danga leen di gis di leen ñee mais ñoom du ñu ñee seen bopp. Mhm. dañuy xëy gi nga tey di li nga war a jot muy ci oto. Mhm. muy ci kër muy ci xaalis muy fi nga war a tëdd kenn mënu mus ba doo ko jot. dëgg la am na ñoo xam ne tey jii ñu ngi dang-dang yi nga gis leen di leen ñee. Mhm. ñoom bu ñu tëddee du ñu nalaw dañuy fanaanee jooy ndax seen fit du dal. seen conscience du tranquille ndax nan ko amee nan ko defee. dama naan jigéen yàlla da koo teral. sargal ko wax ci moom yu bëri. kon ñun nan teral suñu bopp xam ñun ñooy kan. Mhm. bëgg bës ma nga nee di dem am na lii. Mhm. toog na fii sànq da nga ko wax muy entreprise yeeg société yi fay xew. Mhm. mu nekk defante yu ñaaw yoo xam ne jaru ko. kenn demul ñëw na li fa xew de. gisoo ko génn àdduna. ñëwaat wàññeeku ne la Ibu lii wëg lii laa moo fa am wala lii wëg lii laa fekk. dëgg la. kon fii neex na loolu de waaye ñun xamuñ lu ñuy fekk di ëllëg. te damay faral di wax ëllëg du añ du reer waaye lu mët a sédd la. nekk ci TikTok bi di jaay sa bopp. wala tey nga gis Ibou ne ko Ibou damaa bëgg nga dugal ma bërëb sàngam mhm. Ibou na la ah mën naa la faa dugal nga ne ko bu ma fa dugalee kat awma lu ma la fay waaye man mën naa laa jox sama bopp mhm. ana valeur u jigéen fam ne mhm. ana li ñuy wax ci jigéen ak yëpp rek fan la nekk muy affaire yu ñaaw yoo xam ne dafa bëri ci société bi bu ñu koy wax sax xam naa fii ba suba mhm. duñ fi jugee duñ fi jugee waaye comme dañ fee dalal daanaan mhm. dalal fi koo xam ne macha allah man buy wax comme ni ma ko waxee rek sama yaram dafay daw xam naa ne tamit émission bi ni muy gën a demee rek mhm. moom tamit xam naa ne dina si gën a indi ay leeral yoo xam ne askan bi dinañ si mën a jëriñ tey dinañu gën a baaxee ay yëf dinañu gën a baaxee ay ay xéewal waaye itam dinañu gën a baaxee ay muslawaay ndax tey téléspectateurs yi toog di seetaan tey dama bëgg tey ngeen jël seen bigg ak fay rek tey noté imam mooy li ma waxoon sànq rek ci mami Euh, léegi boo ubbee TikTok bi sa yaram dafay daw. nga ubbi YouTube Facebook jëf ju ñaaw ji ñu nekkee ngir bëgg a tekki est-ce que jar na ko imam. Ibrahima. waaw. lenn de xam naa. Hmm. mooy dëkk yaramu neen. Hmm. te mbooloo mu nekk. Hmm. nga ne fa naan daara na naan daraan. su toog pour noonu naaru góor dëgg la de. moo nekk ko sañ. moom rek moo ko sañ. fu mu génn ñu bravo. fu mu génn ñu bravo. dëgg la parce que noonu la ko yàlla bindee. Mhm. loolooy baaxam. Mhm. nit nag dafa am loo xamante ne ni moom moo war a nekk ci moom. Mhm. parce que dañuy wax ne jigéen dafa am cër yoo xamante ne dafa dafa nekk ci moom. yii dañ ko koo dénk yii moo ko moom. gis nga jigéen ay weenam dañ ko koo dénk moomu. xam nga loolu. xam naa loolu imam leeralal ma ko. ndax. li tax jigéen moomul weenam mooy bu yàlla dogalee mu am doom doom ju moo war a jël la nga xam ne moom moo si moo sa nekk war ko jëfandikoo ah doo nga génne si jëkkër ay dem iwetaan père gas nag jëkkër laa xamul ay wen du pour jëkkër ah, pour pour ah, yow doon waay booy booy booy ko ay eh, eh, jëmale liir yi waaw gaso doo ko bàyyi mu yegg non non non non jëkkër yi jëkkër moo moom ween ah. avant doom moom mooy jëkk jëkkër jëy njëkk a màcc ay waay ay waay ay waay waaw bàyyi ko mu yegg waaw da ngay wax ñaar yëpp ba pare de da nga ah. déedéet da jëkkër wax loo ko lu bëgg yow yow yow da ngay màcc oustaz da ngay màcc da ngay màcc da namp soo ngir yàlla doo bàyyi ba yow waaw bàyyi si yow day namp voilà il mu leeral ko day namp yàlla baax na amul ah <laughs> naan doom. dama wax ne. yow. ween jigéen moomu ko. dëgg la jëkkër ma ko koo dénk pour doomam. Mm. du dëgg jigéen li góor moom ci moom mooy payam te mooy jëkkër. nga ne nga ne dégg nga. Pape da ngay nekk fii wala nga dem. gasoo bàyyi sëñ bi da nga répété wax ji. bi sëñ dama wax ne. Mm. jigéen weenam doomam moo ko moom jëkkër pay la moom. pay la moom. waaw waaye ah, bàyyi loolu. mën na bàyyi loolu. est-ce que mu ko bàyyi kàddu gi. non non amul bàyyi kàddu gi. mais mais Imaam xam li ngay wax dalul leer. Imaam li nga wax dafa am solo. Mhm. dama bëggoon euh, ah. confirmation ci Serigne Moustapha mu mu mu laaya biir ñu ci loolu. waaw sëriñ bi. Mhm. ñetti mbir dafa am. Mhm. am ñu mu jig. am ñoo xam ni jigu leen. dafa am loo xam ni. yàlla rek la jig ñàkk kilifa yàlla rek moom la jig maanaam yàlla rek moo mën a ñàkk kilifa mu jig ko yàlla rek moo ñàkk kilifa moom yàlla rek la def lu la neex te doo diisoo kenn mhm. yàlla rek la jig